asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dañuy gërëm sénégalais yëpp parce que dafa am ci lu ñu jógee mooy la pré campagne pré campagne bi wax dëgg neex yàlla ñu ngi remercier les jeunes les femmes comme le troisième âge ñoom ñëpp wax dëgg neex yàlla jàpp nañ ci ba luñ ci doon séntu yëpp yàlla may ñu ci ndam ci biir campagne bi aussi man à mon niveau j'avais la coordination du département de Dakar Pikine Guédiawaye Rufisque Thiès Tambacounda Bakel Goudiri Koupentoum Kédougou Salemata Saraya et la diaspora noonu la yeneen leaders yi dañ leen confier aussi yeneen localité yàlla dimbali ñu boobu ba léegi ñi ngi liggéey ci bismillahi rahmaani rahim war ko jeexalee nag tey ci alhamdulilahi rabbil alamin dëkk bi nag dafa nekk dëkk bu màgg dëkku Sidi Hajj la dëkku Cheikh Umarul Fuutiyu la dëkku Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu la dëkku bu Boukounta Ndiassane la dëkku Cheikh Ibrahima Niass la dëkku église bi la dëkku kunta kunta yi la dëkku Canaba Sekkeen lañ ak yeneen confrères yëpp ci réew mi lañ bokk donc mooy invité la jeunesse de mon pays nañu moytu lu bëri y a eu 47 ñu ci nekkoon di saagante ak di waxante lu ñaaw ñu ñuy saaga suñuy waajoor lañ suñuy pàppal lañ suñuy yaay lañ mais team réseaux sociaux yi di jël ay kàddu yu ñaaw di ko waxante nekkoon na lu ma rafetluwul ci élection yi jël ay panneaux publicitaires candidat bu ci nekk da jël sa sueur sa ñaq def ko ci ak ñi nga àndal des années yi ñu jël ay huile jël ay pétrole sotti ko di bind ay kàddu yu ñaaw ci panneaux publicitaires yu nekk ci mbedd bi nekk na lu ma ñaawul loolu yëpp vraiment maa ngi demander à la jeunesse de mon pays ñu koy éviter parce que ëllëg ak si biir day nekk loo xamante ni dañ koy ñaawlu beneen bi mooy mbirum force de défense et de sécurité nañu bàyyi di la police nationale et l'armée il faut savoir que nous sommes dans un pays en voie de développement yenn kàddu yi suñ koy jël di ko xasee suñu police nationale wala di ko xasee yeneen corps militaire ak paramilitaire yi ñun suñu dëkk ñun ñooy dellu ginnaaw parce que yeneen chaînes yi suñ koy wane dañu naan ak ah, Sénégal kat ñoom mënuñu juboo seen réew donc ci loolu yëpp maa ngi invité surtout ñun les jeunes nañu delloo si suñu xel le vote na est un acte boo xamante ni citoyen bu nekk war nga ko mën a def donc maa ngi invité les jeunes ñoom ñëpp ñu dem voté yi le 30 incha allah waaye ma leen di ñaanaat suñu demee ba fekk fa troisième âge wala ñu ñëw tap si ci diggante bi nañu génn ci yi bàyyi suñu papa yi ak suñu maam yi ak suñu yaay yi ñooñu jiitu ñun ñu topp seen ginnaaw lu waral loolu cër boobu noonu suñu leen ko joxee ñu ngi ñaan yàlla ñun ñëpp la jeunesse am gudd fan ak wér-gu-yaram ngir ëllëg si biir ñun suñu wàllu bopp suñu amee seen age kat génération bi bees bi di ñëw ñooñu aussi mu ñu jël cër boobu noonu delloo ko. Euh, maa ngi remercier le docteur Cheikh Tidiane Gadio moom mi jël ma ci biir euh, campagne bi confier ma lu amoon solo ci biir mooy euh, boole ma ci mbirum communication bi ak directoire national bi mooy directoire de campagne bi mu confier ma ci lu rëy donc ci loolu daal wax dëgg neex yàlla maa ngi koy gërëm à ses côtés am na lu bëri lu ma jot a jàngat en politique ah c' est c' est un c' est un homme dimension exceptionnelle naw naa ko bu baax maa ngi gërëm les jeunes yu ñu àndal maa ngi gërëm les yu ñu àndal maa ngi gërëm les alliés. bàyyiwul kenn ku lim di ma juum maa ngi ñaanaat sénégalais ñu xam benn mbir élection yi nañ ci dem ci yar ak teggin réew mii kenn du ko taal may demandé waat au président Macky Sall mu xamante ni que moom ndey ji séex la dafa war a tëddee njaaxanaay parce que su élection yi jàllee war na woo yeneen 46 listes yépp 47e bi ci moom la bokk mooy le premier ministre mu wax les 46 autres leaders yëpp ñu ñëw àndandoo waxtaan parce que ku ci nekk am nga programme pour ñoom ñëpp ñu xool naka la ñuy suqalee suñu réew parce que kenn nekku fi pour yàq réew mi donc moom en tant que président de la république chef suprême des armées gardien de la constitution na woolu ñëpp parce que ñëpp njabootam lañ ku xaste na leen jéggal ku wax wax bu ñaaw na bàyyi mu sedd ndaxte réew soo ko yoree noonu ko war a jiitee donc loolu man en tant que fils maa sama bàyyi di le président ñun nag élection yi ñu ngi ciy jublu maa ngi ci coalition pour alternative troisième voie Sénégal day dem maa ngi demander à toute la jeunesse sénégalaise aux femmes na ñëpp teel xëy dem teel a ràññee mbir yi parce que suñu bulletin mi ngi nii nii la mel donc maa ngi demander ñëpp ñu teel a jël lii yóbbu ko ci urne yi mu fees fa del del del comme ça incha allah au soir suñuy wootee ci la soirée électorale qui est prévue aux Almadies fii nii ñëpp mën a ñëwandoo ñu mën a jubiler quel que le résultat personnellement je prendrai mon téléphone pour appeler ku war a gagner élection yi parce que nee naa leen nous sommes en démocratie dinañu woo ñi ngi ñaan yàlla mu nekk ñun mais keneen ku munti nekk aussi dinaa la woo au téléphone dinaa la féliciter dinaa la bind lettre pour lan parce que Sénégal ñun ñëpp ko bokk su sooxee ñu soox su Sénégal su réew mi jëlee kanam aussi ñu jëm kanam te ñun ñëpp dañuy liggéey pour réew mi jëm ci kanam maa ngi gërëm ñëpp ci biir campagne su dee tooñ naa nit saaga muy pouvoir muy opposition muy société civile muy troisième voie maa ngi jéggalu maa ngi tuub À mon nom propre et au nom de toute la jeunesse sénégalaise, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.